Quando nañ leen bu baax jaajëfal leen yéen ñi safoo site internet bi di RTV Dakar li a fës ci bopp xabaar yi dañu koy doo rek CAN bi ci jàkkaarloo bi amoon ci nga xamante ne doon nañu ko amal a tey jii foofu ca stade Charles Konan Banny bu Yamoussoukro yemoo fukki fan ak juróom ci weeru janvier bi le gaynde yi nag daal dinañuy def ab compétition bu mucc ayib waaye nag daal dinañ wane ñi nga xamante ñoom ñooy scorpion yi rek ñoom ñoo leen man ginnaaw bu ñu leen éliminer ci quart de finale bi de mu nekkoon nag seen dernière compétition ki nga xamante ne moom moo njëkk a lakk caax yi rek di Pape alexandre Gueye mi nga xamante ne rek moom moo ubbi boobule score ginnaaw bu ñu joué lu toll ci ñeenti minute laata nag ñuy dem ci cinquante deuxième minute bi rek ki nga xamante ne rek moom mooy Lamine Camara daal di def ab double bu mucc ayib ba dugal li nga xamante ne moom mooy ñaareelu but bi ginnaaw bu ñu demee ba quatre vingt sixième minute de jeu nag la daal di dugalaat lii di troisième bi boobu lee ñu fàttali nag Gambie ci jëmmi boppam rek dem naa def kéemtolay kàttanam nag ngir mën a jonganteek gaynde yi waaye daal dafa mel ni rek ñoom ci seen jëmmi bopp nag ñoo leen dàq football ñoo leen ëpp doole ëpp leen aussi boobulee technique waral ki nga xamante ne moom mooy capitaine Omar Koli nekk ca diwaan bu Gambie moom ci match boobulee daal dinay jël sax ab carton rouge ginnaaw rek bu mu doon jéem invité li nga xamante ne rek moom mooy nombre de bu bari ñu fàttali leen nag Sénégal ci jëmmi boppam daal dinay rek moom mooy xarañte fam ci wàllum football ginnaaw rek bu ñu leen dippee euh, champion d'Afrique waaye nag jamono ji ñuy wax Sénégal dina amal ab laaleem ci digganteem ak Cameroun nit fukki fan ak juróom-ñett ci weeru bi ñu dëtmal mu nekk nag ñaareelu match boo xamante ne rek ñu ngi koy xaarandi bu dee Gambie boom jamono ji nag moo Guinée ñoom ñooy laalee ba tey rek ci football boobu nag la ñuy daal di desandi ginnaaw coup premier coup d'envoi bu njëkk bi rek ñeel nag CAN 2024 bi le nag ki nga xamante ne rek moom mooy Sénégal daal dinay dominer dominer bu am doole ci jàkkaarloo bi nga xamante ne rek doon na ko amal ak adversaire am bi ginnaaw bu mu ko daanee rek ñetti bal uh, ci dara Gambie ci jëmi boppam rek uh, jamono yi daal dinay dëggal Sénégal ne moom ci jëmi boppam moom mooy statut bu grand uh, favori du ñàkk dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotay xabaar jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir amaat yeneen info